mbokk yi ginnaaw bañ sante yàlla julli ci sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam tàllal suñu loxo suñu borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom man te mooy borom sañ-sañ li nga xam ne xew na ci réew mi te jaaxal ñëpp te moom képp moo ci man dara yal nañu ko yal ñu gën a sottil ak dal ak jàmm ci réew mi te sotti ko ci mbooleem réew yi jullit yëpp ginnaaw loolu itam ñu xam ne nag jàkka dafa am loo xam ne moo ko tax a jóg. li ko tax a jóg mooy jaamu yàlla ndax yàlla moo ko waxal boppam wa anal masajida lillah lu tegawaat ca ñu xamaat ne jàkk ba tey itam doonut loo xam li sa li nga xam ne moom la yàlla santaane muy jaamu yàlla googee dafa wax ne saa ñu ko defee ba noppi itam nañ delluwaat ci it la ñuy def ñu defee ko fa nga xam ne fu lañ jëm wala fañ ko fañ ko jàppee waaye doonu duñ jàpp jàkk mukk mu doon barab boo xam ne dañ fay defe leneen lu dul jaamu yàlla looloo tax suñ borom bi nga xamee ne wax nañu ne nañuy julli si itam ajjuma dafa wax ne fa isa xudiyati salaatu fantasiru fil ardi wabtaxu min fadlillah kon nag ñu xam ne jàkkali ko tax a jóg mooy jaamu yàlla ñu xam ne li liñ fa war a def itam mooy jaamu yàlla kon yàlla nañu suñ borom gën a dellu si suñuy xel gën noo xamal bañ xam ne jàkkali ko tax a jóg mooy jaamu yàlla lañ war a def itam mooy jaamu yàlla loolu suñ borom xam mën na ko jàpp na yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu nag ñu bokk di bëgg a nafaraat loo xam ne dañoo toll ci jamono loola nag mooy aj aj nag dafa doon loo xam ne lu am solo lu mat a bàyyi xel ndax kat dafa doon dafa doon lu ab keno ci lislaam keno yi nga xam ne tëye na lislaam bokk na ci aj la loo aj nag nan lañ koy defee mooy dañuy dem Màkka dañuy dem ba Màkka nga xam ne dafa am barab boo xam ne suñ wax ne suñ borom dafa wax ne fii lañ koy defee kon bokkut ak yeneen jaamu yàlla yi nga xam ne barab bu ne sañees na ko waa defee manees na ko waa defee waaye aj moom faaw boo ko bëggee def da ngay dem ba Makka boo demee itam ci aw waxtu wu mu waxtu yoo xam ne dañ la wax ne li tàmbalee ci waxtu sàngam boo waxtu sàngam ngay mën a aj bu ko defee ci lu dul waxtu yooye boo waxee ne aj nga itam aj nga mu nee suta jàpp ne ak aj la ndax aj mu ngi tàmbalee ci bi ñu woree ba bañ ba fukki fan yi nga xam ne moo moo njëkk ci wéeru tabaski bu fukki fan yooyu njëkk ci wéeru tabaski jàllee xëy na ma ne sa jaatagat ñaari fan ñetti fan mu jeex kon am na jamono juñ koy defee am na barab buñ koy defee am na noo xam ne itam ni lañ koy defee loola itam yonent bi sallallahu alayhi wa ko jàngal ci nan lañ koy defee aj moomee nag doon loo xam ne lu am solo la lu mat a bàyyi xel la képp koo xam ne yàlla man loo na ko na nga ko def ndax yool bu rëy bi nga xam ne moom lañ ciy jëlee comme niñ ko niñ ko waxee woon ci jamono yee weesu jaamu yàlla yépp buñ ko soo ñu ko seetee li sañ li tax suñ borom gën koo waratal waral ci waral ci ñun du dara lu du gën a mën a sotti yërmandeem ak njéggalam ci suñ kaw loola nag kon mooy jaamu yàlla yi yeneen yi nga xam ne mooy atta bu tam ko seetee dañ dañu gis ne dara tax koo jóg lu du teraanga ji nga xam ne moom la suñ borom wax ne moom la teral doomu adama nuñ koy ñoŋale ak nuñ koy sàmme ba kenn du ko xët kenn du jaar ci lu bokkut li nga war jaar loolu nag kon mooy ci tënk mooy njàngale nu lislaam lislaam bu njëkk bi muy li nga xam ne suñ borom a ko moom defu ko lu dul ñun ngir bëgg noo yërëm bëgg a sotti yërmandeem ak njëggalam ci suñ kaw yi nga xam ne itam mooy yi nga xam ne moom la tër muy àtte yooya dara tax koo jóg lu dul bëgg rek ñu sàmm karaama teraanga ji nga xam ne moom la suñ borom defal doomu aadama aj moomu nag kon bokk na ci jëf yi gën a rëy li ñu koy won nag ne bokk na ci jëf yi gën a rëy ci gën a màgg ci yàlla mooy yonent bi sallallahu dañ ko mës a laaj ne ko maanaam jëf yi ñuy jëfat yàlla jan jëf moo ci gën a rëy mu ne gëm ngëm yàlla kon nag xam nañ ni ngëm yàlla yëfi xol la doonu du ay cër di def waaye nag ko loolu day wane ne li ngay jëf ka nga koy jëfal bala laa mën a fay dang koy dang koy nangul ne lii moo ko moom ba noppi nga soog nga soog a mën a laaj sañ laaj lam lay fayee waaye bu fekkee ne wonoo ko ne ko yaa moom lii ba noppi bëgg mu fay la kon day mel ni yaa ngi def ci ak neen loolu moo tax suñ borom di wax wallazina kafaru amaalahum ka sarabin bi qiyaatin mooy ñi gëm yàlla jëf ju ñu mën a def lu mu baax baax ak lu mu niru lu baax comme wu nangu ñi ñi gëmut yàlla jëf ji ñuy def lu ba lu mu baax baax ak lu mu lu baax baax duñ ko mën a jàppee ne ñi ngi koy defal yàlla ndax nanguwul nangu luñ yàlla kon yàlla mi fay abul lu mu leen ameel mën na koo mën naa def dara nag ci yërmandeem waaye amul dara loo xam ne aman leen ko kon ñu xam ne jëf ju mën doon bala yaa koo suñ borom a nangu faaw da ngay lu dañ koy nangul moom ci boppam loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ko jëf yi gën a tedd ci yàlla mooy gëm yàlla su ne ko ban boo ca mooy nga nangoo joxe sa alal ak sa jëm ngir yàlla ba ca teguwaat mooy aj goo xam ne jaare nga ko ni nga ko war a jaare doxe ko ni nga ko war a doxe kon yooyu yooyu mooy ñetti yëf yi nga xam ne suñ borom réyal na ko te kawel na ko ñu war ko bàyyi xel bokk na ci ci ci ci xéewali aj ba tey aj bokk na ci xeeti jihaad yi may joxe sa bakkan ak sa alal ci yàlla aj bokk na ci ndax xam nañ ne aj boo koy def alala koy def waaye la lay tax nga mën koo def yitam mooy sa cër ak sa kàttan kon bokk na ci bokk na ci jihaad yi li ñu ko won nag mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loo xam ne Xasan ibnu Ali yi mënu ko nettali nee na dafa am benn waay boo xam ne dafa mën si ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man day jihaad tëli naa ko ndax li tax ma tëje ko mooy man damay ab ragal ba noppi boole ci itam doon gu néew doole mu ne ko nag kaay ma wax la aj goo xam ne am kaay ma wax la jihaad goo xam ne mën nga koo def te dégg sax du ca jëm loola nag mooy lan mu ne ko mooy aj kon mu doon lu mat a bàyyi xel ñaareel ba ca teguwaat mooy aj bokk na ci li nga xam ne day far ay bakkaar comme niñ ko waxe woon rek ne jaamu yàlla yi suñ borom ah, farataal ci ñoom buñ ko xoolee yëpp loo xam ne lu ñuy indi yërmande la ak njëgal suñu borom rek moom rek la aj moom kon bokk na ci yooyu nga xam ne day fara ay bakkaar loola nag ñu ko woon mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne képp koo xam ne aj nga te bëggay aj dugaloo ca yenn yi caaxaan jugaloo ca yenn lenn loo xam ne day won day day teg ne fi nga war a teg suñ borom ak li nga war a sàbboonte sa digganteeg moom defoo ci defoo ko nee na loolu boo ko defee boo delluwaatee jóge ci aj ga da ngay mel ni kuy kuy soog a judduwaat kuy kuy soog a judd nag xam nañ ne amul benn bakkar kon moom it ka nga xam ne aj na te doxee la ko nii dugalu ci yenn caaxaan defu fi ca dara loo xam ne day wane ne ju yàlla fi mu ko war a teg wala doxewul doxewul ni mu bëgg mu doxee ko kooka bu delluwaatee day mel ni kuy ñuy soog kuy juddu ñaareel ba itam aj ñetteel ba maanaam wala juróomeel ba bokk na ci yi nga xam ne mooy njariñul aj mooy ajkat yi dañuy mel ni ñuy gane ji yàlla lañ ku ñu ku gane yàlla nag xam nañ ne yàlla moom lépp a ngi ci moom lépp moom moo am na ko lépp itam mën na ko kon nag boo ko gan ku gane ji yàlla benn nga am soxla soo bëgg ñu mu fajal la ko nee na boobaay dana la ko fajal wala nga fees der la ki bàkkaar sa bëgg suñ borom jégal la bàkkaar yooye loola itam suñ borom dana la ko defal ñu ba xamaat ba tey ne aj moom ak payam ëllëg ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee dafa dara du ak payam lu dul àjjana li ñu ko won nag moo yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne nee na aj boo umra boo ker ngay umrawaat diggante boobu loo fi def ci ay bakkaar yu mag suñu borom dana la ko jéggal boo umra boo boo ajee itam ba ba ngay ajiwaat lépp loo xam ne def nga ci seen diggante ci ay bakkaar yoo xam ne bakkaar yu mag la suñu borom dana la ko jéggal te delluwaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xam le ne aj goo xam ne guñ nangu la day amul dara luy payam lu dul na kon loolu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la am na yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu mu waxee waat itam ne ci hadis boo xam ne abi Jurayh mënuñu ko nettalee jëlee ko ci jaabir yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne na ngeen xam ne kaaba gii de mi ngi bokk ci bokk na ci ci ci cosa maanaam ci bokk na ci li nga xam ne mooy dëgëral lislaam képp koo xam ne jóg nga nag ngir jëm ci ci kaaba gii moo xam ngay aj si wala ngay umrati na nga xam ne day am na loo xam ne yàlla waral warul na la ko lim la warul mooy bu fekkee ne yàlla dogal na ñu moom la foofee na nga xam ne àjjana la la suñ borom jëmale bu fekkee ne dellusi nga itam na nga xam ne ànd nga ay xéewal ak pay gu rëy goo xam ne suñu borom dencal na la ko yonent bi sallallahu alayhi di ñu xamal itam ne lu mat li mat di def la ndax dafa am ñaar yoo xam ne doomu aadama moom la gën a ragal te yoor yu ñaar yooyu kat aj da koy da koy da koy dindi da koy da da koy dindi ci doomu adama ji ñaar yooya mooy doomu aadama ju nekk ragal na ñàkk doomu aadama ju nekk itam ragal naa i bakkaar te nee na boo dee def saaya soo umra boo ëllëgee nga aj boo ajee boo ajee boo ëllë boo ajee boo ëllëgee nga umra nee na loolu li muy def mooy dafa mel ni ni nga xam ne ni la tëgg bi di taqalee xaalis ak ya cay rax nam koy dindee noonu la aj ak umra di dindee say bakkaar kon nag ñu xam ne aj moomu nag li muy rëy rëy ak li muy bari bari ay ay xéewal nañ xam ne benn yoon képp la ko suñ borom waral ci ab jullit leneen loo waxtu woo ko defaatee coobarewu la wala naafi la rek lañ koy tuddee loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xam ne Abu Hurayra te nettali nañ ko nee na yonent bi sallallahu alayhi dafa mës a benn bis di waxtaan ak jullit ñi ne leen na ngeen xam ne de yàlla farataal na ci yéen aj kon nag na ngeen aj nee na bi mu waxee ba noppi am benn waay boo xam ne daa daal di jóg ne ndax aj moomu kon dañ ko war a def ci at mu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne cell mu ne ndax aj dañ ko war a def ci ñi waxtu wu nekk maanaam ci at mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne cell wax ko ñetti yoon ba mu ko waxee nag yonent bi sallallahu alayhi sallam ne ko bu wekkoon ne nee naa la waaw kon day leen di war te xam naa ne at mu ne ngeen aji kenn ñi ko yàlla mën loo bëriwul te kon nag bu fekkee ne maa ngi leen di jàngal da ngeen di déglu li ma leen di jàngal te fas yéene koo jëfee waaye bu leen ci jéem a dugal leneen lu bokkut ak li ma leen jàngal na ngeen yem ci li ma leen jàngal ndax loolu kat di jéem a jéggi li nga xam ne moom la la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jàngal lim lay yóbbee mooy ñi nga xam ne ñu xeet yi jiitu woon yonent xeetu sayidna muhammad sallallahu alayhi wasallam li taxoon yàlla alag leen lépp mu ngi jóge woon ci seen laaj yu bari yu ñuy laaj yonent yi ak bo ak nangoo ak bari bu ñuy bari wuuteeg yonent yi loola moo leen yóbbi woon li nga xam ne moom moo andi seenu alkane kon nag bu fekkee ne digal naa leen dara nee na na ngeen ko def te defe ko seen kémt lay kattan bu ma leen teree dara nag moom te dara jooju na ngeen ko bàyyi yàlla nañu suñu borom dimbali nag ñu doon ñoo xam ne li suñ borom digle danañ ci def suñ kéem laay kattan defi ko ni nga xam ne ni la ko def ni la ni la ko bëggee ci ñun lépp loo xam ne tere na ko yàlla nañu suñ borom jox kattan ak man goo xam ne danañ bàyyi loolee ni nga xam ne ni ne suñu borom bëggee ñu bàyyi ko. ginnaaw loolu nag ñu tàllalaat suñuy loxo di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom sañ-sañ te mooy borom man-man Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk Sëñ Touba te gis nañu ne dara du itteem lu dul lislaam ji ak doomu aadama yi yàlla na ko suñu borom gën a tëbb kattan ak man ak tal ba lim yéene ci doomu aadama yi ak li nga xam ne yéene na ko ci lislaam mu mën koo def ci defi noo koy njortam tañ ànd koog moom te jaddi ci ngërëm suñu moom képp koo xam ne itam lislaam mooy sab tool yàlla na suñu borom gën a kattanal gën laa manal gën laa sañal ba li nga xam ne yéen a ngi ko def ci lislaam nga def ko ci defe nu koy sa njort te daje cee ngërëmul suñ borom loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko nga ànd kook ñi nga xam ne itam ñoom nga ko war a àndal yàlla nañu suñu borom gën a so gën a sotti jàmm ak gu dal ci réew mi gën noo delloo si suñuy xel bañ xam fi ñu war a jaar xam liñ man ak liñ mënut ak li nga xam ne yàlla képp moo nu ca mën a dimbali loole ñu dellu ñu dellu ca ca yàlla comme niñ ko defe woon ci ajuma ji weesu muy nañ gën a sax ci tuub ak di jéglu suñ borom ndax moom képp mooy nu mën a dindil jafe-jafe yi ñu nekk moom képp itam moo mën a lijjanti àdduna ndax moom moo bind àdduna kon nag lu fi lëj lu nekk mën na koo lijjanti yàlla nañu suñu borom dimbaleel boppam taxawal nu boppam rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim